moo tax mu tofal ci ne wala bi sama bon na lool istara watee nañ bixii ci moom anfusahum seen bopp seen bakkan law bu ngi nekkoon ya'lamuuna di xam ne liñ watee seen bakkan moo bon te mooy jël téeréb yàlla bi teg ko ca suuf jël njabar yëkkati ko ca kaw mu nekk loo xam du leen jariñ mukk te da leen jural mbugal di leen jural tamit ëllëg safara bu ñu nekkoon xam ne loolu li ko noñu ba ko de njabar nag bokk na ci ay baat yoo xam ne kenn xamul lu ñuy tekki nga toggale ko di ko wéerudoo wala nga koy jëfandikoo wala jàng lu yaatu loo xam ne kenn xamul nga door a tafli fas xam na xadis bu ne képp ku jàng fas rek njabar nga moo waraloon njabarkat yi ci alquran bi ko yàlla misaal dafa nafasaati fil uqad maa ngi muslu ci njabarkat yu jigéen ya di way tafli ca pas-pas ya Labiid ibnu Asam ak mbooloo xam ma ca ña saxal xissa boobu danañ ca yegg insha kon wala bi sama bon na lool sharawatee nañ bi ci moom anfusahum seen bopp mooy jël seen àllaaxira jëndee ko seen àdduna jël njabar jëndee ko téeréb yàlla bi mu jural leen safar law kaan doon ne koy yàlla mun a di ko xam ab jullit dafa war a xam fi muy teg tànkam lépp lu ko lënt rek mu bako bañ koy jëfandikoo dem ci listixaar ak ñaan ak ñaan loo gaa yi baax yi te bañ dem ci ñi nga xam ne dañ ngay jëfandikoo njabar muy liggéey jooni jooni léegi boo xam ne mën na laa jugal mën na laa jural tamit jooni jooni léegi sax walaw annahum doonte woon naka ñoom yahuud yi amanoo gëmoon nañ alquran gëm yonentu yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam wattaqaw ñi teet maanaam mooy yàlla wattaqaw ñi teet njabaat li ko noonu man yàlla danaa leen yool de te la masuubatun ak yool gu tuutee tuuti meneen laay bàyyi ko ca yàlla xayrun moo gën njabar yee lañ nekk lépp daw kaangoon ne ko yàlla moom de xam ne moo gën nañ ko jëfandikoo te bàyyi njabar gi gis nga ko tanwin gi tanwinu tahqiir tanwinu taqliil tuuti la as payoor su tuuti moo gën coono bu bëree bëri te fekk amul payoor rawat na nag payoor boo xam ne bu rëy bu du ko ci yàlla la gis nga ko aaya bi tegu ci pour wan la ngoon ak yëgoor ko xamaat ci aaya bi dañ daan fekk jullit ñi bu ñëwee fekk yonent bi toog ñu ne ko raaina ñoom yëgoor yi tamit ñëw di leen toppandoor ne raaina te nag booba jullit ñi ñi ngi jàppee baatam naa ni mi ngi bàyyi ko ci riyaatu mooy sàmm bàyyi ñu xel ñi ngi sa gannaaw kon léeg-léeg nit gis ko sëñ bi bàyyi ma xel maa sa gannaaw de ñoom tamit dañ ko daan wax yonent bi ci moom lañ jëlee baat yooyu yahudi bu ñëwee wax loola ñoom na mu seen làng nekk loolu saaga lay firi ci yahud ndax mu ngi bàyyi ko ci baatam raina mën naa nekk raina bu ci arab saaga la ndax mooy dof bi ku ñàkk xel mais bu fekkee tamit ci ci ci ci ci ci ci langu yahud la saaga la mooy yabar bi ku tekkiwul dara taxaw suñ kanam bëgg ñoo jiite léegi nag am na yonantu bi ab saxaabi yu boo xam ne dafa dégg langu yahud ñu ko tuddee sax dum muaz moom nag moo leen dégg rek ñuy wax raaina raaina rek mu woo leen bokki jaasim na ku ma déggati ci yéen yahud di nga wax yonantu bi naa ma dagg sa dox yéen yéen a saaga yonantu bi rek julli ñi ñoom jàpp ne raina jàpp ne mi ngi bàyyi ko ci riyaa moo tax ñenn ñi ne baat bi saryaaniya la ñenn ñi ne abraaniya la am na sax ñu ne arab la léegi nag ba lii nag demee mu ne ku moo déggati ku ko wax ma dagg sa doq rek ci la yàlla wàccee aaya bii ne leen nag comme jamtul mi ngi ciy am baat bi mën naa nekk tagg ci yéen te yéen moom ngeen ci jublu waaye nekk na xaste ci beneen langue te yéen a bokk pénc mi bàyyi leen leen seen baat bi te jël baat boo xam ne ko bu leen waxati raina di leen wax yow yonent bi dem kon jëmee ci ñu bàyyi ma fi kenn du yàlla moo tax bépp baax boo xam ne boo ko wooyee nit ki du ko neex bàyyam tuddeewut du ko yaayam du ko ko wooyee nga jàll du ko bëgg koo wooyee loolu te ko loolu baaxul yàlla wax na ko wala tanaabazu bil alqaab bisal ismu al fusuuqu ba'dal iimaan nit ki yaa bàyyi ma ko tuddee Muhammad rayal oo ilimaan mu taxaw ñu ne ko maxu maxu max rek lañ tekki baaxul kii ñu tuddee ko Souleymane nga ne ko Zil janax rek lay tekki janax bu jigéen moom yàq rek moo tax ñooñu tamit bu leen tuddee day am jeexital ci ñoom ndax tur dafa war a am jeexital ci ki ñu koy tuddee benn saxaabi yu bu bon benn benn benn waa ju bon kon mag ngan saxaabi yu dafa ñëw fekk bu saxaaba yi toogaan rek day ñëw tabaarakallaahu euh, bu jël ñaari mbaamam ya mel mu tuddee ko Aboubacar mel mu tuddee ko Omar ibn Khattab bu ñëwee fekk saxaaba yi toog rek mu dóor Ali Aboubacar Ali Omar leen naqaral ñu wax ko yonent mu métti ko lool benn bis mu toog rek mbaam ma weq ko ñaari mbaam ya na weq ko ca mu dee ko yonent mu ne mu ne mbaam moom tuddee Omar moo ko weq ji koy Omar yee ji moo ñëw ci moom rek mu am ci moom jeexit moo tax mu ne yaa ayyuha alladina yéen gaa yi nga xam ne amanoo gëm nañ alquran laa taqooloo bu leen waxati yonent bi mu ko nekk raaina bu leen ko waxati raaina ndax kat yahood yi ñu ngi ciy porox ndoll di ca am ak yéen di ko saagahaale wa qóoloo wax leen ko rek unzur naa xoolal jëmee ci ñun wasmaxoo dégg leen li ma leen di diggal déggal nangu walil kaafirina aji nekk la ñeel xéeféeri azaabun buggal alim mooy may bër ma mëjkal te maa ngi leen xamal ne maa yawat du ngéeju dina ña nga xam ne kafaroo wér dinañ min ahlil kitaab ci diggante yahud ak nasaraan walal musrikin du ñaa ne xéeféer yi ngéeju wut an yu nasala ba wàcceef aleykum ci yéen min xayrin ci wenn yiw min xayrin ci benn wax yu min rabbikum ku bàyyi ko seen borom ngir xañaane leen rek bu ñu sañoon yonantu bi du ngeen ko xam du génn ci yéen ci ñoom lay bokk loolu moo leen naqari moo waral buntu buñ mën a jaar ngir yàqal rek dañ ko def waaye wallaahu yàlla yaxtasu dana mu jagleel bi raxmatihi ci wax yoom bi raxmatihi ci nubuwatoom man yasaaru ku ko soob te yonentoo ku soob jox na ko ko wallaahu yàlla zul fadli mooy borom ngëneel al azimi gay aji màgg de mënu leen ca dara kon yàlla def na ko yëkkati na li gën jox ko ki gën mu indil ko xeetam yu gën ñu koy jariñoo yéen ñi gën a yées nag bu gën bëggee yàq du sotti aaya bii di maanaam sax min ayatin aw munsiha mooy aaya bi njëkk a ñëw ci folli parce que yàlla xakiim la moo yore ay mbiram fu ko neex mu tëral ko ci ni ko neexee te boo seetee ma bi mu ñëwee Madinatul Munawwara bees fukki weer ak juróom-benn ñii ne fukkiweer ak juróom-ñaar yam fa njëkk a def sama borom da koo digal ne ko follil naa la xibla bi nekkoon muy kaabatal musarafa léegi booy julleeti jël jublu baytil muqaddas niirale ko ak yahood yi pour nga wan leen na yow yonantu yépp nga fonk téere yépp nga xormaalu waaye xibla yépp moom nga respecté ku bon nag kenn mënta xëccoo moom kenn mënta séddoo moom ndabal teraanga ndax boo ko bëggee séddoo moom mu xëccoo ko yow mu yàqu ñu commencé di ayibal yonantu bi naan mi ngi nii contre suñ diine dëppoog ñun xibla folli googu nag yàlla njëkk a folli xibla kaabatul musarafa mu jublu baytul muqaddas ci lañ ko commencé di contour mooy première ki ñu ne yonentu gënu topp koo xam ne bu tayee mu ne ñuul na boo liggéey mu ne weex na nangam ak nangam lu la ñuy wax ci waaye koo xam ne bu ne weex na yàllaa wax weex na jar na topp koo xam ne bu ne ñuul na yàllaa wax ñuul na jar na topp li bon kay mooy ki ne ñuul na wala weex na ci bakkanam kooku baaxut nas ko googu nag lay wax si bañ ko waxee mu ne qul man qul maa yakunu lii an ubaddilahu min tilqaa'i nafsi man de aw ma sañ-sañu soppi alquran wala soppi àtte ci sama bakkanu bopp lu ma def yàlla ko su ma ne weex rek yàlla wax weex nas gi nag mi ngi bàyyi ko ci rek nasaxati chambu ardillah maanaam jant bi foli na ker yi xam nga léegi-léegi yàgg katineer yi nekk ba ci kan du fi nekk ci loolu mooy loxatal waaye nag istilaahan moo jëlee fi xattee indi fi bari àtte léeg-léeg na àtte bañ fay jëlee man nañ faa jëlee àtte ba ak baat ya léegi léeg ñu jëlee fa àtte ba rek baat ya nekk fa léeg-léeg ñu jëlee fa baat ya ak àtte ba yëpp ci njëlbeenu lislaam bala laa nit a xaraam day fekk nga nàmp ci moom fukki nàmp fukki yoon nàmp nàmp ba muy fukki yoon fooli lañ ko benn muuki sax boo ko defoon ci weenu jigéen ci jamono ji ngay nàmp te feraguloo su boobaa jigéen booba sa yaay la ñam bokk ak bàyyi sa yéen bokk bàyyi ñam bokk ak yaay yéen bokk ndey ak bàyyi yow moom boo màggee doo mën a takk jigéen ñi ndax ay yaay nàmpal euh, jigéen booba doom yëpp njëkk am ak yi mujj am ak jëkkëram yi xam ne moom la doon sëy noonu ba mu lay nàmpal jëkkër yooyu tamit ñëpp sa maanaam doom yooyu lañ dootu li mën a bu njëkk ba nag yoon nga koy def ñu doon ko konte mujj gi ko ci benn nàmp rek mujj lu tuuti ñaareel bi ci lislaam am na ci atte boo xam ne kon boo seetee atte boobu jële nañ fa baat ya jëlee fa atte ba fukki nàmp ci alxuraan la neexoon waaye jëlee nañ fa baat yi newut fi atte bi newut fi ñaareel bi am na ci folli goo xam ne dañ fay jëlee baat ya rek waaye atte baa nga fa jëlee nañ fa texte bi kenn du gisati baat ba waaye ñu ngi koy appliquer atte ba am na ci alxuraan amoon na ci góor boo xam ne sange woon na mooy ku mos am jabar mos a sëy moom benn yoon bu njaalootee dañ ko war a jami doj ba mu dee jigéen boo xam ne mas naa am jëkkër mas a sëy ak moom benn yoon bu njaalootee dañ ko war a jame doj ba mu dee muy ashayqu wa shayqatu ida sanaya farjumuhumal battata waaye loolu amatul ci alquran waaye nag acte bi ba léegi ñu ngi koy appliqué képp ku wala ñu takk la nga sëy ak moom benn yoon njaalooti su boobaa yow sangewu nga dañ laa war a gasal pax ci jàkka ci jumaa jam la ay doj ba nga dee li muy tekki nag mooy bëri na ay niw yuy dox ba amaat ay doom du tere nag doom yooyu doonu leen boobu rey ñu leen bi ci tegu tamit atte boo xam ne dañ faa jëlee atte ba atte ba nekkatul fa muy texte bi waaye baat yaa nga fa atte bi ni ñu war a appliquer di ko doxal nekkatul fa waaye baat yi ñu koy jàng ba tey bu njëkk ci njëlbeenu lislaam nit bu ko neexee mu def testament ci alalam wala ne euh, testament ci sa alal ku la neex nga ko daan defal maanaam doon di ki la war a doon man nga wax ne sama alal ji may naa genn wala gi sama bàyyi benn wala gi sama bàyyi sama doom dara mujj gën a fol nañ ko ci aayaatul miraas waaye fol nañ ko ci xadis bi yonent bi doon laa wasiyata lil waarisi booy def testament da ngay def testament ci ki la war a doon waaye ki la war a doon mënoo def testament ci sa alal ci moom ndax su boobaa da dafay ëppale def testament ci moom day ëppale ñeneen ñi alquran la nekkoon moo tax bu njëkk ba kutiba alaykum ida xadara ahadukum al mawtu in taraka xayran al wasiyatu lil walidayni wal aqrabin waaye loolu fol nañ ci yusikum laahu fi awlaadikum yàlla tudd cër yi kenn ku nekk lam war a am yonent bi tamit wax ne laa wasiyata lil waarisi bu njëkk ba tamit ci lislaam maanaam nit bu génnee àdduna bàyyi ay soxna soxna ya dañuy toog di ko tënji ba xat at lañ daan tënji fukki weer ak bu nit génnaan àdduna soxnaam ya dañ ko tënji at bu at jeexee nag ci la ñu door a utaat jëkkër yàlla folli ko ne nag léegi ñeenti weer ak fukki fan jaa jàng ñaar yëpp ñu ngi ko jàng ci alquran bi follee bi ko follee yëpp jàngoon ngaa yàlla alquran ne wallazina yatawaffawna minkum wa yazaluna aswajan wasiyatan li aswajihim mataan ila al hawl xayra ixraaji waaye jàngan nga wallazina yatawaffawna minkum wa yazaluna aswajan yatarabbasna bi anfusihinna arbaata ashhurin wa ashra moomu ba ba tey ñu ngi suratul baqara gis nga ko de bu njëkk ba ci lislaam timit benn jullit moo daan xeexal fukki xéeféer benn jullit bu taxawaan fukki xéeféer daf ko amul droit daw yàlla nag mu jigi mu fol ñu ko ne alaana xafafallaahu ankum wa allima anna fiikum du'fan léegi nag may naa leen benn jullit bu ne man naa ak ñaari xéeféer mais bu ñu xëppee ñaar mën ngaa daw waaye nag lu waral ñaar yi sa gëm yàlla di jëmm la sa jëmm ji di jëmm jullit bu nekk gëm yàlla am nga jëmm la jëmmam ji di jëmm muy ñaar moo tax léegi nag tabaarakàlla jullit ñëpp millions yi jullit ñooy dawal fukki yéeféer tey jullit ñëpp diggante Arabie Saoudite Égypte yeneen réew yëpp ñu ngi dawal Israël ragal leen buñ buñ buñ waxee loo xam ne du dëgg wala ñu def loo xam ne du dëgg kenn du dagg ñemee dagg relation bi dox seen diggante ak ñoom ngir ay intérêt yu tegul fenn kon tey jullit ñëpp ay daw tey ci ay yéeféer leen daw kon loolu lépp nag musiba la mu dal ci suñ kaw kon foo ay façon am la moo tax mu ne maanaam sax lépp luñ folli min ayatin ci aaya aw nun si a wala ñu yéexi ak wàccam lépp loo xam ne folli nañ ko ci aaya wala maanaam ñu yéexi ak wàccam naati danañu indi bi xayri ci lu gën min ha ci moom lu gën a jëriñ jaami ci yomb wala lu lu ko gën a bëri payoor wala lu niroog moom toggeel niroog moom ci yoon alam ta'lam xanaa xamoo ne ana laa naka yàlla xadirul aji xattan la alaa kulli seen ci lépp lëf de ku man lépp lëf nag bu la waxee defal ku man lu ne bul discuter xam nga léegi-léegi ñu ñu niroo aw misliha mooy jublu jublu moom jublu rek la xam nga jublu jublu baytul maqdis sax jublu kaaba ga ñoo xem toog ñoo xem yool ci ndax benn bu ci nekk ci ndigalal yàlla nga ko defee kon yool yi ñoo xem ba tey tamit nag am na ci wax nii ñoo gën a nga tey boo seetee ki loolu tënjee at ñu toxal ko ci ñeenti weer ak fukki fan gën a oyof ci moom gën a oyof ci borom kër gi nga mbokk yi génn moom mu génn àdduna nga xam ne kër ga rek bu ci amee ñeenti weer ak fukki fan bu leen neexee jaay bu leen neexee tamit moom mu gi génne ko ñoom ñi seet la ñu def ci kër comme ki dee bàyyi na kër moo gën a xoyof waaye ma ne benn nit bëggee xeex fukki nit nit nit ñi dalee ko ci fukki nit wàññi ko juróom-ñett ne ko ñaar rek doy na gën a xoyof kon naati bi xayri min haaj maanaam lu wér boo déggee mu ne aw nun si wax nañ ne saaba yi wax ne am na saar wu newoon ci alquran demoon na ni suratul wala mu ëpp ko benn bis dañoo ko jàng si rek yonent bi ne yéeg ñu ne alquran ëppoon waaye nag yàlla da caa folliwaat am lu mu yéegalaat ca ko aw aw nun si ah dégg nga naati bi moom nag dafa am saar yu ko am am na ci alquran saar yoo xam ne dañoo am naasix waaye amul mansuux am ci yoo xam ne am nañ mansuux waaye amul naasix am ci yoo xam ne bool nañ am naasix ak mansuux xam naa insha allah comme ni nga yéen ci téere bi dañ ko gën a leeral ci kan ni ñu gën di demee rek insha allah mu ne alam taalam xanaa xamoo ne ana laa naka yàlla lahu aji nekk la ñeel ko mulku samawaati nguuri juróom-ñaari asamaan wal ardi a nguuri juróom-ñaari suuf wa maa lakum ñeelul leen min dooni laay ku dul yàlla min waliin ci kuy méngee seen i leen di kon nag yàlla mi mag ñi moo leen di mooy méngoo seen i mbir fu mu leen jubale jublu leen fa te nag ku xamul fooy jublu fu ñu la jubale jublu fa boo bëggee nopp te te nag nas ko jërut jërut jërut weddi dafa am ci lu ne médecin rek da ngay dem ci moom mu defal la nas ko carrément da ngay dem bon ko sa carte de sa carnet de santé mu xool bindal la ne lii ak lii ak lii nga dem jël balaa weer wee ki mën a la bàyyi lii léegi del jël bi ndax gis na lii baaxoon na ci yow jële jamono waaye fii nga toll lii baax na ci yow lii moo baax ci yow kon am na ci sa santé ko ki nga xam ne ñu koy topp ko di la ko defal noonu la amee ci sa dund bi bi nga juddoo bees mënoo wax mënoo dox mënoo raam nga dem a dem ba raam ñëw man man a dem ñëw ba ba toog ñëw folli lool nga ñëw ba dox ñëw folli raam nga dem ba ci kanam wax ñëw folli ñàkk mën a wax nga ñëw ñëw mujj nekk ponkal mën a dox man lépp nga dem ba ci kanam sa ndaw dem sa kóoliya ñëw muy mbañurus nga dem ba ci kanam màgget ñëw nga dem ba ci kanam nag dee door a ñëw loolu lépp ci folli la dee folli la da nga fay ci kanam neexatoo fi rek xàtte bi di dafay new ba ci kanam neexatu fi rek la amee ci jamono ji da fi nekk ba ci kanam jant bi nekk fi mi ngi nii boo xaaree léegi tey jant bi kon folli nañ ko bëccëg guddi gi nekk fi ba ci kanam bëccëg bi ñëw folli ko noonu la amee tamit gis nga ko day tàng léegi lay sedd bi ñëw folli tàngoor tàngoor bi ñëw folli sedd bi léeg ngi nekk ci jamono joo xam ne tàngul seetut noonu lay amee léeg-léeg mu taw sebeti ñëw folli ko kon tamit yàlla bind nas ko naasix ak mansuux amul lu lu leen nag su ba ko defee man mi tam lépp jël leen te ndax ki mbàyyee ko xam na mbir mu ne fan koy teg léegi nag waqaaloo wax nañ ne lan yadxula tàbbati dina taal jana ilaa man kaanu koo xam nekk na hudan du yahud aw nasara wala lafun wa nasrun murattabuuna yahud yi ñoo wax ne aljana ñun rek a fay dugg yahud nasaraan yi ne aljana ñun rek ñoo fay dugg ñun nasaraan dégg de waaw ma su fekkee aljana yahud rek a fay dugg dana wéet de su fekkoon nasaraan rek tamit dana wéet de yàlla na leen tontu xul wax leen ne yàlla ne tilka loolu lu amaani seeni mbébét la seeni fen la xul waxal ne leen haatu andi leen burhaanakum seen lay ci loola in kuntum dem nekk ngeen saadiqina di way dëggu ne yéen rek yéenay dugal yàlla di ngi diine indi preuve la loo xam daa war a wax ne mi ngi nii waaye balaa xakay dana dugg aljana ku dul yéen man aslama képp ku jébbal wajhoo jëmmam ji lépp lillaahi ñeel yàlla woo fekk moom muhsinun aji wéetal la ko fa lahoo ñeel na ko ajruhu payoram inda rabbihi fa boromam wala xawfun di ragal alayhim di nekk ci ñoom wala hum déet ñoom tamit yi nekk a jàpp tasmiyatul kulli bismil juz'i la man mi ngi tudd jëmm xam nga euh, jëmmi doomu aadama xar-xaram a ci gën a sell ku jël na sa xar-xaram bi nga gën a fonk xamal ko jébbal ko yàlla ne ko ràpp si bëtal ko jox ko sa jëmm ji lépp yàlla ne kon képp ku jébbal sa bopp yàlla mi dul dee du nelaw du gémmantu nga jàll dugg tamit wéetal yàlla da nga am payoor ak àdduna doo doo jàpp fii ci àdduna bu ëllëgee tamit doo tiit àllaaxira ndax aljanna bi kon lii tamit ba tey valable na ci jamono léeg-léeg ñu naan ñun tariqa sàngam rek ñu ñooy dem aljana ñoo nekk ci dëgg ñii ne ñun ñu jàpp tariqa sàngam ñoo nekk ci dëgg ñi ne ñu jàpp tariqa na ñun ñu nekk ñun ñu jàpp tariqa rek ñoo nekk ci dëgg ñii dañoo yokk ndax kullu bi xatin dalaala taqaamewuñ kulli yow kulliyatu di wax rek waaye ñoo nekk ci dëgg dafa teel bala ngaa wax ñoo nekk ci dëgg xaaral ba si loosement ci aljana waaye fekk jëlagoo loosement ñoo nekk ci dëgg teel la ndax dañuy def yàlla ay boo demee nag bam ne la lii nag yow a xam ne parce que julli gi ñu julli léegi sax xamuñ xamuñ yàlla day wax di jëf muy noppi di enregistré bu ñu xeggee foofu ngay door a xam yaa ci nekk teel na wa qaalati wax na al yahudu yahud nasaraan ñi nekk ci dara lu kenn xam weddi xen sax wa qaalati wax na al nasaara nasaraan ya laysati yahud déet yahud ya ala seen ñi nekk ci dara lu kenn xam weddi yonentu yàlla Muusa te àddee ah, nga de wowum te ñoom ñaari kuréel yi yatlu na ñu ngi jàng alkitaaba téere bi nga xam ne wàccee nañ ko ci ñoom wàccee nañ ñële tawreer muy dëggal Isa bii ñu wàccee ci ñoom linjiil muy dëggal Muusa xaala dégg nga de kasaalika naka yii ñaari kuréel yi wax muy yow ak nasaraan xaala la wax alladina ñi nga xam ne laa yàlla mën a ñoom xamuñ dara toppandoor rek mooy ummi yi ne musrikuuna yi nga xam ne ñoom mosuñoo yónni ci ñoom benn ab yónantu mosuñoo wàcce ci ñoom benn ab téere tul sayyiduna ñu ngay wax mis la xawleem kem yi ñii ngir toppandoor waaye li ci mën di wóor fallaahu yàlla yaxkumu dana xatte baynahum seen diggante diggante nasaraan yi ak maanaam yahood yi ak musrikuuna yi dana leen xatte yowmal qiyaamati keroog bis pénc fii maa ca da nga ne kaanoon nekkoon nañ yaxtalifuuna di wutee fii ca moom nañ bàyyi ba xegg ci yàlla ba mu xatte la ñu door a xam ki ci dëgg waaye fu ma ne yahood yaa ngi fëgg seen dëna ne ku nekkul ci diina yahood newoo ci dara nasaraan yi ne ku newul ci ñun newoo ci dara musrikuuna yi fëgg seen dëna ne ku newul ci ci dara yàlla ne leen yër ñett ñëpp fëgg dënn teer na kaa leen ba ngeen ñëw ci ñun ba ma àtte leen ngeen doon a fëgg seen dënn yi kon tamit ahlu turuq yi ak firaq yi bu kenn ci ñoom fëgg dënam nañoo nekk ci dëgg teel na nañ xaar bañ yegg ci yàlla bañ xàtte ñu doo xam mi nekkul ci dëkk waaye rek ñun ñoo nekk ci tariqa sàngam ñoo nekk ci dëgg wëdd wedd ñeneen wala yóbbu jàmbur taxaw na ñoo nekk ci dëgg weddi tariqa jàmbur ak sëriñ ñëpp jàmbur yow gëmoo tariqa gëmoo tamit sëriñ weddi ñoom ñëpp na ñoo nekk ci dëgg ndax ñooy ahlu sunna wal jamaa ku ca bokkul maanaam nga ku ne ku am tax yow nga weddi ko te teewul sa am nga sëriñ booy déglu boo xam ne dalay mosal rek bu la yéexee mosal sax nga wax tuddee sa bopp naan islam borom laa fekk dañ laa lobal dara rek niñ la lobaloon bu jeexee rek nga commencé at waxaat di dal ci kaw mag ñi nga xam ne dañoo liggéey bay bëgg a dee yàlla faye leen loo xam ne nii tabaarakallaahu sax dañ koy def bëgguñ ko waaye yàlla baaxoon lu xam nga xam ca te ñoom dañoo yàlla ba yàlla gërëm ni lu yàlla xam ñu xam ca nga a compte na ñu ñëwee ci dëgg yàlla ne koo xam ne moo dàq tooñ mi man a dañoo tere masaajid dañ laay jàkkaay yàlla ji jàkkaay yàlla yi an yuftira walis bay tuddee fii ca ñoom isma wa turam wa wasaxaa ñuy dox fii xaraabiha ci ràpp jàkka ja ulaayka yooyu gaay maa kaana nekkul lahum ñeel leen an yadxuluhaa ñuy tàbbi ca jàkka ja illaa xaaifun ludul na ngeen leen ragalloo bi maanaam na ngeen leen ragalloo ci jihaad ci seen kaw lahum dal na seen kaw sax fi duniyaa ci àdduna xisyun gàcca wa lahum dal na seen kaw ba tey fil aaxirati ci àllaaxira azaabun mbugal aziimun moo xam ne mu màgg a màgg bi sababu nusool bi dañ cee wuutee dafa am ñu jël sababu nusool bi moomale ko tabaarakallaahu jàkkaay baytil muqaddas ja ndax Euh, maanaam ñi nga xam ne ñoo ko ràppaloon ci xisa boo xam ne nii bu yéemoo yéemu la ba Umar ibn Xattaab moo ko mujj bee salaat xam nga lii sabab ba mooy euh, buxtu nasar bokk na ci ñeent ñi mësul moom àdduna waaye yéeféer la am nasaraan la woon nga dafa juble woon soldaaram ya te ruum ngir dem ràppal baytul muqaddas maa ngi naan nasaraan la waaye déet moom sax jaamukatu safara la woon majuus la woon majuus yi léegi nag mu mu hebal leen ca iraq ca baabil gi doon jàng sànq mooy bi nga xamee ne banu israil rey nañu yaxya rey sakariya léegi nag moom ci la dalale seen kaw nit yàlla xiirtal seen moon bii tamit di na nasar dal ci kaw ñooña euh, yahood yi ràppal seen jàkka ja ba nga xam ne tamit ray leen ray boo xam ne bu ñaaw la jàkka ja continué ci rappaa ji continué ci rappaa ga ba xilaafaat Seyduna Omar moo tabaxaat jàkka ja beesal ko yàlla nag ne ñi nga xam ne ñoo ràppal jàkka yàlla jooju walis ñi fay tudd yàlla di ko fa jaamu ñi tëj jàkka ja ci diir bu toll noona bàkkaar bu rëy rëy rëy seen kaw ci àdduna dañ leen teg gàcc ak àdduna danañ leen teg tamit bu ëllëgee mbugalam àllaaxira muy buxtu nasar a mbooloo léegi tamit ñenn nga ne li ko tax a wàcc Xudaybiya la juróom-benneeli at ci gàddaayu yonent bi fi la fi yonent bi bàyyee ko woon Makka Madina jëm Makka wax ne li ko tax a jug mooy siyaara ji rek Kaaba ga ndax da koo nam juróom-benni at a ngi nii dem ba muy dem àndoon ak junney soldat ak ñeenti téeméer bëgg waxum raj musrikuuna yi maanaam gatandu ko baare ko ne du dugg Makka mu yónni ci kisa bu gudd sëhlum no Omar ñoom tamit nii Suhayl ibn Amr la waa Màkka yónni mu nekk seen safir ambassade seen ambassadeur bi ñuy kii tamit yonent bi yónni Usmaan mu nekk ambassadeur am ñu war a topp pour war a waxtaan ñi d'accord daal déwén waaye ren moom mayuñu ko mu jege Kaaba ak bi nag fekk moo leen waxoon saxaba yi leen da ngeen dugg ci Kaaba ga wat seen bopp wër néeg ba te boobu ñu namoon nañ Màkka lool ñëpp d'accord la tadxuluna al masjid al haram insha allahu aminina muhalliqina ruusakum wa muqassirin ñoom nag bañ demee ba Xudaybiya xéeféer yi gawle na duñ dugg Màkka te booba ñoom ba ñuy bàyyi ko Madina seen xel yépp nga nekk Màkka medd ne mun nañ Kaaba ga na mun nañ ngedd ma medd ya ak tabaxu dëkk baag ya ci aju yonent bi ne leen laal ren man ta neex ci leen seen bopp yi ñu war a coiffé wu coiffé wu te ñu dëppaat ngeen loj seen giléem yi te ñu ñibbi ñépp mel toog faale wu tu yonent wax na sa waaye kenn faale wu waaye xat-xat booba jigéen moo leen ci génnee umus yonentu fa toog na ko aw naka la ñuy texee te seenam yonentu digal leen te defuñu ko umu salmata ne ko wallaahi yonentu bi ñuy yow rek dañoo na dëkk ba rek ne tey dinañ fa dem fanaan seen yaakaar bi tas jooju nag moo tax ñoom ñëpp waaye yow rek lañ bëgg bul waxati kenn ne ko watu watul rek yow booy watu rek ñu watu waaye yonentu bi daal ba commencé wat balaa genn wàll gaa pare sax fekk na ñëpp wat na kon xelaat bu rafet boobu jigéen ko kon toog naan jigéen ñi duñ dara jigéen ñi léegi di gàtt xel la jigéen léeg-léeg mu xegg foo xam ne góor mënu ko lislaam du diina juy yëkkati góor gannaawal diina yëkkati mag gannaawal ndaw du diina juy jox ndaw yi ca kanam bàyyi ca gannaaw xeet woo gis ñu torox rek loolu moo leen yóbbu ne ndaw yi waruñoo bokk wala jigéen ñi waruñoo bokk wala mag ñi waruñoo bokk ni ko tubaab yi defee ñépp war a bokk waaye nag xemuñu terewul nag góor jigéen nag ak góor xemuñ la la wax ne wala zakaru kal unsa duñ benn waaye nag waxul ne góor a gën ngëneel ci biram yàlla la ngëneel njëkk sànni njëkkalante la ngëneel yàllaa ko sànni ñépp daw jëm ca góor mën na caa njëkk jigéen mën na caa njëkk waaye nag xemuñ xemuñ bi yàlla bind góor bind ko jigéen ndax jigéen na góor ay première matière jigéen deuxième matière la xam nga ki njëkk nekk nit góor di aadam ci aadama la di première matière ci lañu ñu bind deuxième matière bi xawaa looloo waral mi nekk première matière moo atam nubuwatu moo atam maanaam risalatu moo atam jigéen deuxième matière moo tax mënta attan nubuwatu ak nu risalatu ak nu qurbaani mën naa nekk wëli waaye du nekk bu sama li góor nekk première matière moo tax dañuy defal yàlla jullee ci gën foor jigéen góor a koy jiite jigéen du julli génn julli du farata du naafila du góor yi kese du jigéen yi kese yàlla dafa ne yaa Maryam uqnutii li rabbiki wasjudii warka'ii ma'a raaki'iin ca gannaaw rek moo waral tamit jigéen li mu nekk deuxième matière tax yàlla classé ko genn wàll genn wàllu xalal lay doon waaye tamit genn wàllu diye lañ koy def ku rey jigéen genn wàllu diye ngay joxe tey boo reyoon góor téeméeri gëléem boo reyee jigéen juróom fukki gëléem naka tamit genn wàllu xel leen yàlla jàppee soo Aïcha la xam-xam bay lépp yàlla dafa ne yonentu dafa def benn yàlla genn wàllu xam-xam rek moo tax mu ne xuzoo nisfa diinikum min yàqu na góor ñi toog fii ak jigéen ñi di bàkku naan yore sa caag di cokor cokor yi wutuwoo jëkkër naan parité parité naa nga mag naa yëfi jaaral la góor a jigéen mënu ñoo boo demee Gambie ñoom ngay wax ñu ne fifty fifty maanaam juróom fukk ak juróom fukk la ma ne ah xanaa fifty fifty juróom fukk la de duut fifty fifty kon nag loolu jar naa bàyyi jigéen ak góor baat yi sax mu boo jëloon jigéen si fural xaraf ya jigéen lu mu lay jox jiim ñett la kaaf ñaar fukk la yaa gi fukk la nun gi juróom fukk la daanaka juróom-ñett fukk la ak ñett jigéen boo jëloon góor dana la jox ñaar téeméer ak ñaar ak juróom-benn parce que kaaf ñaar fukk la waaw siis la maanaam raa ñaar la kon gis ko ba genn wàll soo ko jëloon tamit maanaam ci ci ci ci ni koy tubaab di waxee nga siifar ko tamit loolu tamit ni ñu koy waxee ci français nga siifar seen xaraf yi tamit da ngay fekk soo ko jëloon ci arab tamit nga siifar ko tamit da ngay fekk góor maanaam mënuñoo xam ci daal kon nag na xaraf yi ñàkkee xam ni lañ ñàkkee xam tamit kon nag nañ bàyyi loolu loo teg moo tax nag kon gis nga ràppal jàkka ji ji ma doon wax ba wax loolu bokk na ci ñoom ñi tere yonent bi jàkkaay yàlla ji kon xam nañ gàcce bu rëy ci àdduna moo tax yonent bi sadd ci ñoom galak dàq leen xare ñoom gañe leen waaye bu yowmal xiyaamee tamit ñoo ngi doon def loola dañ leen dugal safara waaye tamit aaya bi dugalaal ne wa man azlama mimman mana'a masaajidallaahi képp ku nekk ci quartier nekk fa am pànk di coow di coow bañ tëj jàkka dugg nga ci am na ci ñoo xam ne moo gën a bëri ci fi rawatina Ndakaaru jàkka joo dem pas yu retraité yi ñoo fa nekk ñii ay police lañu woon ñii ay gendarme lañu woon ñi dàq leen ñi ñu wàññi leen ba ñu nekk seen a ndaw seen yoon nekkul ci jàkk nekk ba nekk màgg jël jàkk yi bëgg ko def gara jël na bëgg a formé commission ñi ñoo yalwaani kii war a kii war a wax imaam nangam boo nekk imaam bu ñàkk fayda dañ lay conduire yaa jiite jàkka ji waaye doo fa daal moo nekk fépp war seen mbuus di yalwaan di dundee jàkka ji fekk defuñ fa daal ñooñu ci mën nañoo indi histoire coow bañ tëj tëj jàkka Dakar ñaata jàkka lañ fi tëj waaye wa man axlamu mimman masajida laa tabax jàkka yi am ñeneen ñoo dëkk ak ñoom ca quartier ba muy néegam yàlla ñu ne ñun ay tijaan lañ dañu fiy wasifa nga ne kenn du wasifa ci jàkka ji dugg nga ci an yuskara fi asma wasaa fi xarabiha yàlla kay comme turam la ñuy tudd ci jàkka rek kenn waxi keneen ñi ñi def ko li bon kay mooy tudd fa lu dul turu yàlla waaye feneen fa turu yàlla kenn warut tabax jàkka ne kenn du fa wasifa du dëgg yow kay jullit ñi ne ñi nga xam ne dañoo bëgg a dajee ngir jàng seen xasaay yi nga bàyyi leen ñi bëgg a dajee ngir def seen i ñaan bàyyi leen ñi bëgg a dajee ngir wasifa bàyyi leen ndax li ñu def yëpp génn diine kon wa man atlamu mimman mana'a masaajida llaahi an yus'ala moo tax mu ne waman xamul kenn aslama koo xam ne moo dàq tooñ mi man ci nga xam ne manaa dafa tere masaajida laay jàkkaay yàlla yi an yuskara ba tuddeef fii ake ñoom ismu wa turu yàlla wasaxaa mu dox fii xaraabiha ci luy ràmpal jàkka ja di wax a wax bañ toj jàkka ja wala di wax a wax bañ toj jàkka ja comme nam xamee woon fële ca xutsu ak di wax a wax ba gàllankoor ñu bëgg a dem si jàkka ja nam xamee woon ca xudday bi ak di wax a wax bañ tëj jàkka ci histoire wala wax a wax bañ ne duñ fa wasifa bañ tëj ko wulaayka yooyee gaay maakaana yellut lawum ñaan leen an yadxuluuhaa ñi tàbbati ca jàkka yooya illaa xaayifiina lu ngeen ragal looleen waruñoo dugg tamit ca dëkk ba muy màkka lul na ngeen leen ragal loo boo ko jàppee muy Xudaybiya lépp nag am na ca wala wum ñaan na leen fi aaxira ci àllaaxira azaabun mbugal aziimun moo xam ne mu màgg màgg la rek aaya bi di xas yonent bi tabaarakallaahu ci ci ci ci jublu gim jublu baytul muqaddas bàyyi kaabatul musarafa ci ndigalal yàlla ñu naa yonent bi gertu topp tey bu ne lii tey mu ne fii la tey mu ne fële la yàlla ne man mii maa moom penku maa moom sow yéen moomu leen dara jaam yéen ñi may jaamu su may jaam ngeen maa leen moom fu ma neex ma jubale leen li bon kay mooy nga jublu fu la yàlla jubale ko waaye foo julli jublu fa te yàlla la ko digga rek baax moo tax mu ne walillaahi aji nekk la ñeel yàlla almashriqu penkuwaay yi wal maxribu ak soxuwaay yi yàllaa moom lépp waa fa ay namaa tuwalloo fu ngeen mën di jubale seen i xar-xaram ci julli defee ko ci ndigalal yàlla fa sama foofale wajhullaahi mooy xiblaay yàlla ja de ina laa naka yàlla waasixun aji yaatu la mu ngëneel alimun ko xam la ay mbiram fa mu koy setantalee kon gis nga ko def na ko ci boo demee ci alquran dana ko def tasniyaay lisin am na foo jàng rabbul mashriqayni wa rabbul maxribayni jàng nga jamoo ja mu ne rabbul masariqi wa rabbul magharibi am na tamit al mashriqu wal maghrib bu fekkee mashriq maghrib bi la benn gendeekuwaayu fenk bi rek la la la la mooy fenk fenk bi ak sowu bi yëpp leen moom benn bu ne muy benn su fekkee da nga ne masariqu dafa gendeeku fenkuwaay bu ne fenkuwaayu tay bu suba jant bi fenk gannaaw suba gannaaw waat suba yëpp noor newet lépp yàlla ak sowu ba tamit noonu su fekkee rek dara rabbul mashriqayn wa rabbul mooy jamono ja jant bay fenk ci jamonoy noor yàlla ko moom ak ba muy sox jamono ji muy fenk ci jamonoy nawet ak ji ba muy sox jamonoy noor lépp yàllaa ko moom nag fu la jubale jublu fa fekk yaa ngi ko defee ci dëgg la amuloo benn problème jubluwaay nag dafa bëri xibla yi lu bëri la boo defee Cheikh Khalil lim na leen am na lu ñu tuddee xiblatul muayana yow mi nekk Màkka amuloo benn ngànt booy julli jublu la Kaaba ga muayana la boo xasee ba jublu Kaaba amul nii amul nii foo jublu rek baax na ñëpp dañ koy wër nii rek foo jublu rek baax na mën ngaa julli fii kii julli fële ngeen ngeen jàkkaarloo di julli am na nag boo xam ne xibla la boo xam ne carrément fii la euh, moom la ma nga nii maanaam jàkkaarloo boobu moom waaye wóor na la ne la fi nga jàkkaarloo foofa la mooy xibla yi nga xam ne yonentoo ko rëdd comme fa na mu rëddee Madina ne fii mooy xibla bi jàkkaarloo ma Makka comme ni yeneen saxaba yi nga xam ne ñu ngi rëddee ci xam-xamu yonantu bi yeneen dëkk yi mel ni iraq ak misra ci capitalu islam yi jàkka yooyu ñu njëkk a faa tabax bañ fay nekk ba ca éthiopie yooya ci xam-xamu saxaba yi lañ ko rëddee ci xam-xamu yonantu yàlla moo xam kon kooku tamit da lay wóoree la carrément lii la beneen bi ci tegu mooy xiblatul ittihaad da nga defee ittihaad comme tey rek ñu rëdd fi jàkka doo yonantu doo ab saxaba maanaam sa xam-xam màcc na ci wàllu biddiw nga def say tegtal comme jàkka ji ak yeneen jàkka yi ne fii daal la xibla bi waye kooku maanaam istihaad rek la bi ci tegu nag mooy xiblatu taxyir day am nit ku wàcc ci ay aéroport ci réew moo xam ne duwul jullit gëlëm na ameewut bu sol amul sagada bu am bu sol amul portable yi am bu sol xàmmeewul fan mooy xibla bi kooku day tànn ci ñeenti côté yi fu ci neex rek ñu Cheikh Khalil nag moom dafa day julli nii julli nii ñeenti côté yëpp bu paree buñ ko xamalee te waxtu wa jeexul mu baamu xat waxtu ki nga xam ne tamit dama dafa nekk ci xare muy xiblatu iltiham di xeex ak yéeféer yi waxtu wi jot dañoo war a julli waaye su boobaa moo julli rek baax ni ma ko waxee woon mën ngaa song ab yéeféer na mu ci jàng fatiha ku saar galgal ko na mu ci rukkoo daane ko na mu ci ab sujjóot foo julli rek baax na yàqu dara danañ ca yegg tamit incha allahu ca misaal yi danañu leeral euh, xare ci xeex dégg nga léegi waqaaloo wax nañ yahud ak nasaraan ne ittaxasa mu jël na laaw yàlla wala dan doom yahud yi dañoo wax ne Usayr doomu yàlla la nasaraan yi ne Iisaa doomu yàlla la yàlla nag li ko gën a métti lépp mooy ku ko askanee doom ndax saa yoo askanee doom yàlla rek ray nga ko ndax doom ñaar rek moo tax ñu koy soxla mooy dee li nga sémboon mu mottali ko ak wala tëlee li nga sémboon mu mu mu maanaam mu mu yëkkati ko yàlla na mi nga xam ne du tëlee mukk lu mu defee doom moom mi du dee tamit lu muy defee doom kon ñu ñii dee ak ñuy tëlee rek ñoo soxla doom moo waral mu ne bal li fi nekk koo xam ne la wu aji nekk la ñaan ko maa fi samaawaati li nekk ci juróom-ñaari asamaan wala ardi ak li nekk ci juróom lépp moomeelam lañ mbindeefam lañ ay jaamam lañ lu muy wutee doom ak moomeel ak ak njureel dañuy dàqoante mënuñoo ànd kullun ñoom ñëpp xaanitoona way jaamu lañ la woon ñeel yàlla de yàlla mi nga xam ne badi'u samaawaati moo créé juróom-ñaari asamaan bind ko taxul ko fenn wal ardi ak juróom-ñaari suuf koo xam ne wa isa xadaa bu na mee dogal amran mbir fa inamaa yàqul daal day wax la woon mbir ma ne nekk rek fa yakunu mu nekk kooku ku xam lu toll nii man lii doy doy doom ñun ñu tële ñi nga xam ne mënuñ dara tekkiwuñ dara ñooy soxla doom bu ñu wétal bu ñu dimbale suñu deexee la sémboon ñu mattali ko bu ñu dee bu tële mënatuñ dara ñu dem uti dépense di jox ñi lekk waaye yàlla ñu xam ne du tële du absenté lu muy lay doom aaya bi wàcc na mu ngiy wax ci kufaaru màkka yi ne ba ñu taxawee ne waaw de yaa wax ne yàlla la yónni lu tax yàlla wax ñu ko ñoom dañoo xattan kàddu yàlla baraada bu tàng bi nga xam ne ma ngay bax man nga koo naan noonu te seddaloo ko ci kaas yi yonent yi ñëw nekk kaas yi seddal baraada bi nekk ci tàngooru yàlla bi ba nit ñi mën koo naan nga ne nañ la jox baraada bu nga naan ko doo ko fekkee moo tax mu ne waqaala wax na ñi laa yàlla mun a xamuñ dara muy kufaaru màkk yi ñoom xamuñ dara toppandoo ñu naan law laa yu kalim naa lu taa waxee ñu laahu yàlla ne yaa moo la yónni aw aw taati nga naa wala nga andil wala wala dikkal ñu aayatun kaawteef comme buy tegtale ne yàlla dof am na kawtee bu gën a rey alquran kazalika naka noonu ñuy wax ngir ñàkk a xam xaala la wax nañ nga xam ne min qablihim jiitu woon na leen misla qawlihim kéem seen wax ja ndax ñëpp seen kéeféer ñoo niroon ñuy waxee tashabaha niroo na xolooboom seen xol ya ci weddi ak tamit ci ak dëngee waaye nag maa ngi lay defal yow yonantu bi xadd naa leeral nañ ayaati aay yi tekki ne maa la ñoo xam ne yoo xinoon ñoom danañu wóolu ñoom ne ñoom duñu am ci duñu am doo ci fekk kenn koy discuter waaye ñoom nag comme xamuñu ku xamul da ngay toll ay waxam suñu abdoulahat daana wax ne réew mi ñaar a ko yàq kii waxta la muy wax xamul ca daal waaye kenn mënu koo noppi loolu ak kii xamoon ca la muy wax jeex na mu nekk ca di di commentaire xelam boppam rek te du noppi moom tamit yàqu ñaar yi ñoo ko yàq moo fi gën a bëri léegi nag inaa naka ñun yàlla arsal naa ñoo yónni ñoo la yónni bil xaq ci dëgg kon ñoom buñ da yónni wuma la bu mu la naqari man yàlla maa la yónni ci dëgg bashiran ngay bégal ku la gëm ci aljana wa nadiran ngay xupp ku la wedd ci safara wala tusal deeful laa la xan asxaabil jahimi ci mbooloom safara mii la di la weddi bu ëllëgee duñ leen laaj seen jëf ñoom tamit sa jëf gi duñ la ko laaj kon baleen bu leen toppati mu teg ca ne walan tardaa gërëm ci xan ka ci yow al wala nasaara du cekkee nasaraan yi xatta tabiha ta nga nangoo topp millatuhum seen yoon wa nit ñu bon lañ ñu fiir lañ loo baax baax boo bokkut ci ñoom duñ nangu sa mbaax loo bëri bëri xam-xam boo bokkut ci ñoom duñ nangu sa xam-xam ñoom daal ki baax mooy ki bokk ci ñoom donte ku bon la ki xam mooy ki bokk ci ñoom donte xamut dara loolu ba léegi valable na ci ci jamono am na ci nit ñoo xam ne la ñuy woote di ca yëngatu ku ca bokkut jàpp nañ ne xamoo dara ku ca bokkut jàpp nañ ne baaxoo pour ñu mën jàpp ne ku sell nga kuy dund ci sunna nga foog lañ nekk nga nekk ca loolu tamit ñàkk xam rek la waaye xul wax leen ne inna huda laay naka njubal yàlla gi di lislaam woo moom dong alhuda mooy njub xasru lu dul moom rek réer la wallaahi wala ni tabax da boo toppoon ahwaawum seen bànneex ci nettale min baax di maa jaaka gannaaw bi nga xamee ne baax da baax da maa jaaka baax da la si kon gannaaw la nga xam ne jaaka dikkal na la min raxel mi ci wax yu boo toppoon ñii seen ci liñ lay xoo bi nga amee preuve leer yii dégg nga na la wóor ne maa laa kon du la ñaan mi ne ci yàlla min wëlli ci kenn kuy méngoo sa mbir wala nasirin du caa kenn kenn ku lay dimbale te maa ngi lay xamal ne alladina ñi nga xam ne aataynaahum jox naa leen alkitaaba téere maanaam yatluuna woo ñu koy jàng xàqa ci dëgg-dëgg ak jàngam ulaayka yooyu gaay yu'minuuna ñoom danañu gëm bii ci moom dana xam ne lii ci yàlla la baxee ko loolu kon amoon na ci comme mbooloo mi nga xam ne dañoo jébbal woon bàyyi ko Éthiopie ak ku mel ne Abdullahi ibnu Salaam lu mat ñeent fukki nit la woon ak ñaar fanweer yëpp maanaam ñeent fukk la woon fanweer yaa ak ñaar yëpp ñu ngi bàyyi ko Éthiopie juróom-ñett yëpp ñu ngi bàyyi ko ca labbe Samia raahib maanaam Bahira raahib mi gisee woon ak yonent bi ca fukki atam ak ñaaree ba mu ànd ak bàyyi taxam ba ca la bokk ki leen woon mooy Jaafar ibnu Abi Taalib di doomi bàyyi taxu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñoom de xam nañ ne alquran dëgg la moo tax ñoom discuté ci mu ngoog léegi ba tey am na ñu def jumla ji muy mubtada bu la neex nga def allazina ñi nga xam ne atay ah, naahum jox naa leen alkitaaba téere ñooña de yatloo na woon ñu koy jàng xaqa tilaawati dëgg dëgg jàngam ulaayka yooye gaay yu'minuuna ñoom ñu dëggal bii ci alquran wa man yakfur du weddi bii ci alquran wa man wa man yakfur du weddi bii ci alquran wa man yakfur ku weddi ngay wax bii ci alquran ulaayka yooye gaay weddi ko hum ñoom alxaasiruuna ñooma di way perte ña de alquran koy weddi bàyyi na léegi wax jooju mu ngi dugg ci banu Israël ba tey ci seeni ayib rek lu mel ni waxoon na ko ca boppi saar wa moom la ne yaa bani Israël yéen yéen doomi Yaquba yi kuroo fàttali ko loon sama xéewal gis nga xeetu yonantu bi kenn du ñoom dañoo jeex ci leera yàlla gi ba yàlla moom boppam leen fàttali fàttali ko leen yàlla rek lay wax buy wax yonantu bi yeneen xeer ya dañoo sori yàlla ba nga xam ne mënuñoo branché wu direct ci yàlla mais ci xéewal yàlla yi la ñuy wu mën a egg ci yàlla moo tax ñoom yàlla da leen di fàttalikuloo ay xéewalam xeetu yonent bi nag yàlla da leen di fàttalikuloo boppam kon duñ benn yaa bani israila yée yéen doomi yaquba yi uskuroo fàttaliku leen ni'mati yi sama xéewal alati xéewal googu an xam ko xéwe naa ko alaykum ci yéen te maa ngi ko defaloon seen maam ya ak seen baay ya te xéewal buñ defal baay wala maam sët wala doom bu baax war na caa bëgg wa andi naka man fadaltukum ma dana loon seen baay ya alal alamina seen mindee fi jamono ja wattaqoo na ngeen ragal yow man bis bopp laa te gisi du fa jariñ ba bakkanab julit an nafsin ci bakkanab xéeféer shay an dara wala yoqbalu deful nangu min ha ca bakkanab xéeféer booba adlun am njot wala tan foo aa du jariñ bakkanab xéeféer ba shafaatun adram wala hum dépp ñoom yun saruna te waxoon naa la ñeent yi tax a mucc ci àdduna yépp lu tax a mucc àllaaxira moo xam ñaan intervention la moo xam jaay doole la moo xam ramu la moo xam jaay daraja la ñeent yi mën naa mucc ci àdduna ku nekk ci xat-xat maanaam ñeent yi mën na laa génne ci kàmbu xat-xat gi waaye nag kàmb ak xat-xat gi ñeent yi mënu caa génne kenn commentaire loon naa la ko ca maanaam bind yiñ passé ba aaya bii nag isibtalaa ibrahima rabbuhu bi kalimaat suñu maam ibrahima yàlla da ko tegoon ay service service ya nag tabaarakallaahu boroom xam-xam ya wuutee nañ ci yonentu yàlla ibrahima tegoon nañ ko ay service waaye yépp matal na ko wax nañ ne service yi ko yàlla tegoon fanweer la mi ci suñ sariya bi fukk yëpp ba nga suratul baraa fi yàlla wax ne attaibuna al abiduna al hamiduna ba wa bashiril muminina santoon nañ ko def na lépp yeneen fukk ya ma nga suratul lahzaab fi yàlla di wax ne inal muslimina wal muslimaat wal muminina wal muminaat magfiratan wa ajran aziman juróom-ñeent yëpp ma nga suratul muminina mooy li ko dara ca qadaaf lahal muminuun ba ca ulaay humul waarisuuna ja kon juróom-ñeent yëpp ma ngi ci suratul muminuuna li ko dooree ci commencement bi muy qad aflahal muminuun ba ci ulaa'ika humul waarisuun allazina yarisuuna firdaws sa lépp ci matal na ko benn ba nag ma ngi ca suratu maanaam saala saailun fi yàlla di wax ne wallazina hum bi shahaadatihim qaa'imuuna matal na ko takkaalif yëpp nag bi mu ko matalee moo tax yàlla tànn ko muy njiit ñenn ngeen takkaalif yi bokk na ca liggéey gi mu doon liggéeyal kaaba gi moo ko doon na rayloo giñ ko rayloo doomam bokk na ca sànni giñ ko sànni ci safara mu nangu koo muñ bokk na ca gàddaay gim gàddaay bàyyi ko saam gim miinoon jëm màkka bokk na ca xool jim doon xool di settantal jant bi ak weer wi ak biddiw yi ngir mën a saxal aw lay ca nitam ña yépp bokk na ca kon moom yonentu yàlla ibrahima ku baax la yàlla rek a xam ki ko gën mooy yonentu bi rek a ko gën moo tax moom yàlla defoon ko ci alalam mu sumeeku ba jeex tàkk dese yàlla yàlla nattu ko ci njabootam mu summeeku ba jeex tàkk dese yàlla yàlla nattu ko ci alal yàlla nattu ko ci bakkanam mu summeeku ba jeex tàkk dese yàlla moo tax fu ko alxuraan tuddee rek day wax a ne innahu mooy kon delloo akkool la ci yàlla xam nga mu ngi nii dem am téeméeri at ak ñaar fukk door a gis ab taawam taaw ba dem ba fu ko ñëpp yu bëggee yàlla digal ko ne ko rey ko mun nga mun a doon ñu bëri nag seen doom yi lañ gënal yàlla bu seen doom yi nelaw fajar sax dañu fa ne buñ leen buñ leen yeeyee dana leen yàqal ba duñ mën a dem jàng loolu lépp gëmuñ yàlla ci seen njaboot bi bi ci tegu yàlla natt na ko ci xalalam ku bari woon xalal la ba gàtt ya doon gàttam ya xaj ya ko daan sàmm sax di leen topp mën na ñeenti téeméeri xaj bu ci nekk seen téeru koor a takkal ak bu xaalis daganoon na ci sariya waaye lu daganoon suñu sariya mu toog rek yàlla xebal mel ne malaaka mu yàlla Ibrahima ne ko yow tudd nga sama xarit genn wàllu xaral ji lépp jox naa la ko ngir benn baat bi nga tudd sama xarit mu ne ko boo ko ñaaraalaatee ma jox la li ci des lépp mu ñaareel ko mu ne ko boo ko ma soppee ma soppeeku sàmm sàmmal la mu ne ko man malaaka laa dama doon seet sa alal ji moo yàlla lu la ci gënal waaye yëpp naa ne yàlla la gënal sa alal ji ñu ci bëri nag seen xalal yàlla moo leen gënal yàlla duñ ci def wàllu yàlla denc rek bañ xëy dee ñu doon leen duñ ca lekk duñ ca saraxe duñ ca lele ba xëy di ko korkoral rek waaye tamit yàlla tu ko ci jëmmam mi ngi nii bañ ko dugalee nga safara wa malaaka mi yore ngelaw ñëw ne ko man xeetali la mu ne ko soxla ma sa ndimbal ke ndox mu ko soxla ma sa ndimbal ba jibril ñëwee ne ko tey ngaa ñaan sa borom xat-xat bi metti na di mu ne ko moom xam gi ne maa ngi fi doy na ma ko si ma koy laaj dara ilmuhu bi haali yughnini an su'aali moo tax kon nag foofa rek la nag jibril ñëw wax ak yàlla mu a ko damay seet xam ko ci keneen waaye nag demal nga wax safara ne ko xul naa yaa naaru kuuni bardan wa salaaman ala ibrahima ibrahima kenn la ku bëgg yàlla mooy ki njëkk dugg néegam góor bu njëkk ba la ko jiitu woon kenn mosul dugg néegam góor mooy ki ko a def mooy ki njëkk a dagg karaw naanu njëkk dagg ay we waaye mooy ki njëkk gis biir jaaw bu njëkk ba amutoon gis biir jaaw ba mu ko gisee mu laa yàlla ne ko lii nag man kat dama gis sama kawar a ñuuloon léegi-léeg ma gis lu weex mu ne ko lii waqaar la weg luy war ñi lu ne ko nag yaa rabbi zidni waqaata moo waral bu la yàlla mayee nga nekk mag mu dundul islam ba biir jaaw ci boo boo koo dajee rek mu weex la mënoo ci boo bëggee àdduna nekk fa ne da koy ñuulal du ko teree du teree maanaam dana weex bu ñëwee a weexaat kon nag nañ nañ dañu bàyyi xel ci loolu lépp kon Ibrahima ngoog lenn ci moom bu buñ gënee dem ci moom dinaa la wax ak ñaata soxna la am danaa la wax ay doomam du ñàkk dinañ dem ba wax la ñaata xat tamit la dund fu ñu ko suul ba mu génnee àdduna waaye lépp mu moo tax mu ne wax fàttalikul isi bu talaa ba nattoo ibrahima ibrahima rabbuhu boromam wala maa wi dañuy bañ naxu waawdul mudmari ala maa uxira labfan wa rukbatan xabixun xudira muqaddimatu kookiya borom ibnu malik na washaa naxwa xaafa rabbahu omar wa sadda naxwa zaana nuuruhu saja dañuy bañ demir dellu ci la ko jiitu woon loolu la ngi jàng naxu na ko xam dañ ko dégg jërul commentaire ñun xam nañ moo tax mu ne kon wa bu talaa fàttalikul ba nattoo ibrahima ibrahima rabboo boromam bi kalimaatin ci ay service la ko yàlla tegal muy fanweer yi ma la limal ñeen ngeen service yi mooy manaasikul xaj rek ñeen ngeen service galax ndikoo sorax dagg naanu waay ak xaj sa bopp ak dagg ay wex ak weef wat kawalu naqa dugg néegab góor ak dugg dugg wan ak jëfandikoo lox ca bokk waaye lu ci mun di xam service yi la ñuy bëri yépp fa atamahunna matal na leen de joxe na ba lépp mat dara mantu ba mu paree nag xaaral sama borom ne ko nii naka man jaaxeelu ko danaa def si la li naa si ñeel nit ñi imaaman ngay njiit tey ma def la ngay njiiti jullit ñi de jiite ñépp njiitam googa moo tax ba ko yàlla yónnee ba ba ci jamono yonantu bi yonantu bi fi yàlla yónnee rek Ibrahima ay sa maam moo jaddu anbiyaa yi ku yàlla fay la xaala moom nag Ibrahima ku bëgg lu baax la mu ne yow yàlla wax na nga def njiit min zuriyati samay doom yi man kat damaa njaboot damaa bëgg sama doom yi nga def leen ñii ay njiit xaala sama borom ne ko déedéet nag laa yanaalu xam tit ahdéer sama kóllëre ci njiite raali mi la tooñkat yi sa doom yi ku ci nekk tooñkat du ma ko mën a jiital ndax njiit ak tooñ mënuñoo ànd yow nag ni nga mel sa doom bi juddu mel ko ma jiital ko waaye nag bu ñëwee bëgg a doxee sa sa dereet bëgg a sa mbubb te nanguwul nga sol ko muy jëfandikoo say wax du ma ko jiital kon gis nga ko Ibrahima ku bëgg lu baax la ba ko yàlla defee njiit dafa ne ko ak ah, sama doom yi mu ne ko ah déedéet na mbiram njiit moom nekkul lu ñuy doon dañ koy jikko ko tax ku baax bu la juree te yow baaxoo ca baaxam nga du la jariñ dara ku baax bu lay dekki te baaxoo ca baaxam ko du la jariñ dara sa baay bu ñëwoon nekk médecin bi jàkk faj kuñ ko indil mu faj ko yow nga nekk mécanicien nga dee ñu ne nañ leen yóbbu nañ ko yóbbul ba tey nga bàyyi bàyyi dee ñu ne doom ji kat bàyyam dafa la indilee malaat tamit xar yi rek ñi dee nga ci xam loolu rek moo fi nekk léegi nag moo gën a bëri léegi nag bii mi ngi ñuy waxal histoire tabaarakallaahu tabax gi Ibrahima tabax Kaaba gi moo ko tabaxaat parce que Kaaba gi tabax nañ ko lu mat fukki yoon malaaka yi ko njëkk tabax waaye ci biir euh, malaaka yi Aadama tabax na ko wax nañ ne Siisa tabax na ko Bani Amaalika tabax nañ ko wàcce nañ noonu ba ci Ibrahima juróom tabax nañ ko yonent bi ittee woon na ngi tabax waaye tabaxut ko waaye bi ma xamee fanweeri at ak juróom ña ko doon tabax bañ xulooxee moo leen tegal xajirul aswad moom la maam xalifa de xakkamatu qawmu qurayshin fi rafia alxajira wa bi maa yurdil kulla kaanu qadaa loolu lay wax moo tax mu ne wa fàttalikul if jaax naa ba ñu defee albayta kaaba ga bata muy place yoolu waay masaabatan muy place baadante li naa si ñeel nit ñi wa am nañ muy place ab sécurité waxuma la rab nitam ña waaye rabam bi sax duñu leen rey wattaxisoo jàpp leen yéen nit ñi min maqaamu ibrahima ci maqaamu ibrahima mooy ba muy tabax kaaba ga fa mu sippi woon bagaasam ya ba boo demee léegi xool fa gis jeexitulu ndëgg wa benn weer maanaam wër ko jàppee leen ko mu salam muy julluwaay wër kaaba ba pare julli fa ñaar rakka fatiha qul kaafiruun fatiha ixlaas wa ahidnaa kóllërante nañ ilaa ibrahima ak ibrahima wa ismaila ak ismaila ne leen an eey tahiraa na ngeen ba albayta sama baytee sama néeg bi ci ay xiram li taay fi la ñeel ñu koy na am ña fay sax def ñax ci kaa waru kooci sujuudi am ña fay julli ñu ñi ndax kaaba gi bët bu set téeméeri yiw am ñaar fukk ñoo fay wàcc maanaam juróom-benn fukk yi ñuy wër ñeent fukk yi ñay julli ñaar fukk yi ñay xool rek doonte waru ñu julliwu moo tax kaaba gi bokk na ci ñeent yi nga xam ne koo xool ñu bindal la yool boo koy xool doonte jàngoo ñu kon da ngay xam ñaari yool yool ak xool yool ak jàng waaye booy jàng benn yool say waajur boo leen di xool xoolu yërmande fonk leen weg leen yërëm leen dañ lay bindal yool doonte tere la boo borom xam boo koy xool xoolu weg ko ñu bindal la yool kaaba gi boo koy xool tamit doonte wëroo waanaam euh, kii woo tamit ñu bindal la yool kon yàlla dafay wàcc yi ci muy toll noonu ñoom ñaar dañoo ko tabaxalaat Ibrahima nag ndeysaan moo doon entrepreneur bu mag ba mu jëloon nag Mineebar doomam ji di Ismaahil mu koy jàppale di ko jox mu wóor muy tabax. dégg nga de mu ñëw maanaam gis na ko kon fondation ba man foon dafa ñëw ngir yëkkati ndax fondation bi nga xam ne moo soqeekoon ca aadama wàcc ci sa ñëw kii moo ñëw nag yàq ko tuufaan bi waaye bi mu ñëwee nag fa la bàyyi fondation bi nii Ibrahima bi mu ñëwee dafa yëkkati fondation waaye maanaam moom gasaatu di fonda di di fondation moo tax bu bu is la wax waxul bu is yëpp nii dégg nga de léegi nag wa ahid naa kóllërante nañ ilaa ibrahima ci ibrahim wa ismail ak ismail ne ko an ay tahira laa ba leen yéen ñaar baytiye sama néeg bi li taayi fi na ñeen ñu koy wër bu fi xiram nekkati wala aati fi naan ñi fi sax waru kooxe sujóodi ak ñi fiy julli wa fàttali ko if qaala ba waxee ibrahima ibrahim ñaan na juróom-ñaari ñaan ci benn taxawaay bi moo waral tamit kuy ñaanal bëgg nañ sa ñaan lu gàtt gàtt mat juróom-ñaari soxla yu wutee yonent bi juróom-ñaari soxla la ñaanoon moom tamit ci taxawaayam bële mujj ci saar wi muy xufraanaka rabbanaa wa ilaykal masiir ba mu jeex juróom-ñaari soxla la ibrahima nag juróom-ñaari soxla yi bi ci njëkk mooy rabbi yow sama borom bi jaxal yàlla nga def haza place bii haza dëkk bii bala dem muy dëkk aminan boo xam ne borom sécurité la ndax kat bala ngaa mën a tala jaamu yàlla nga am sécurité kon sécurité am na solo ba sécurité am ci dëkk moo war a nekk yittewoo njiit lu ñu jiital moo tax Ibrahima ba mu tabaxee Kaaba ga la mu njëkk yittewoo mooy fexe sécurité am fa waaye réew moo xam ne la neex wax la neex def boo rayee nit du mujj fenn bu la yàlla joxee doole wala nga am ci gannaaw boo sukkandiku moom a réew mu def muy bu sécurité amee nag naataange mu ne ko ñaareel ba gannaaw sécurité war sa yàlla nga war sa dal dëkk bi mi ne samaraat ci meññante ndax nit ñi bu ñu amee sécurité mën a dal tal tal dem liggéey man a xëy heure mën a wàcc heure bu loolu amee rek war sax am waaye bu fi alal nekkee te sécurité am kenn du mën a alaloo alal ci moo tax kon gannaaw sécurité lu ci Ibrahima teg rek mooy mooy ñaan wërsëg léegi nag waaye wërsëg wi nag jullit ñi rek de bu ci xéefee mbokk man amana ku gëmmenam ñoom bi laay ci yàlla wala ma bis aaxiri mujj ba xaala sama borom na ko man konti wuma àdduna wax danaa wërsëgal man kafar ku weddi tamit de fa umate xoo ko yóbbal lu néew a néew ci àdduna xal lan lu néew su ma atturoo topp ma lor man konti wu àdduna àdduna ku fi nekk danaa la jox loo lekk jox la foo dëkk jox la looy sol waaye nag goo ma gëmul bu ëllëgee ma dugal a safara man ñett ñi ma njaboot yëpp danaa leen wërsëgal njaboot gi xem ci loxo njaboot gi manqué loxo njaboot gi ma ëppale lépp danaa leen danaa leen comme àdduna la parce que man maay raxmaan ci àdduna waxoon naa loolu ñaan yama ngay continué wa fàttali kon isi rafa waxtu wa yëkkati ibrahima ibrahim xawaayida wa ismail o ismail moo ko doon jàppale ñi tàllal seen loxo yi di ñaan nag ne rabbana yow suñu borom taqabal yàlla nga nangul min naa ci la ñuy def kon ndeke jaamu yàlla yi li ci ëpp solo loo ci sonn sonn na nga yitte woo ñaan yàlla nangu ko bu ko yàlla nangul moo ko seroñ waxe innaka naka yow anta yow laa wax as-sami'u yaay aji dégg wax yi ay alimu yaa aji xam jëf yi muy benn rabbana yow suñu borom wajal naa yàlla nga def ñu muslimay ni ñi di ñaar way xomatu lakka ñeexal la lu waay nekk te doo julli rek perte nga wa yàlla nga def ñu yàlla nga def min zuriyat naa suñu njaboot ummatan ñuy mbooloo muslimatan ñoo xam ne dañoo jébbalu lakka ñeexal la am na ñu ne min gi minam tawxiid la mooy lenn ci suñu njaboot ngir lim ne laa yanaa loo xam di zalimin ñenn ngeen a déedéet njaboot gi yëpp la wax wa arinaa boo bëggee jaamu yàlla te xamoo yoon wi amul njariñ wa tub yàlla na nangu tub alay naa ci ñun innaka naka yow yow laa wax yaay nangu wax koy tubba arahimu yaa yërëmaakoon la ba tey rabbanaa yow suñu borom wa boxas yàlla nga yónni fihim ci waa dëkk ba rasulan ndaw min mu bokk ci ñoom yàlla nangu na ko yónni yonantu mu dëkk ca dëkk ba di arabiyu di di maanaam di hashimi indi leen làng wuñ mën a dégg ndaw loo xam ne yatlu dana jàng xàllim ci ñoom ayatika say aaya muy alquran wa yuallimuhum dana mu jàngal leen alkitaaba alquran wal hikmata ak xatta ya loo xam ne mu laabal leen ci bokkaale innaka naka yow yàlla anta yow laa wax al azizu yaay aji not ci mbir alxakimu yaay ki xereñe mbir mu ne xam nga fi nga koy teg moo tax yonentu bi mu ñëwee dafa daan ne ana daawatu ibrahim wa bushra isa man maa ñaan ak sama maam ibrahima moo ma ñaanoon kon tamit maay kii yonent yàlla Isaa bégaloon ci nitam kon gis nga ko kaaba gi wax naa la tabax a tabax mooy malaaka yi gannaaw si gi aadama gannaaw si gi siisa siisa moo fa ba tuufaan ñëw yàq ko ibrahima door a ñëw tabax ko waaye dañoo jëloon xajul aswan nëbbu ko bi ibrahima ñëwee ba tabax ko jël dugal ko fekk nañ ko nëbboon ci jabalu abi xubasi aw ko tabax ko Quraysh yi door tabax ko waaye bañ koy tabax nag ki leen tegal Hajarul Aswad bi boobu mooy yonentu yàlla Muhammad mi nga xam fanweeri at ak juróom kon ñi ñoo ñoo xam ne tabax nañ Kaaba gi dégg nga waaye bañ koy tabax ñoom waa Quraysh yi mënuñ ko woon a matal dañ cee wàññi woon gannaaw si gi tabaarakallaahu ibnu Subayri ci la ñëw ko kon nag Kaaba gaa ngoog moom la waykat bi way na leen ci fukk yi nga xam ne ñoo mos a tabax Kaaba gi léegi nag Eh, Ibrahima ngoog ak tabax kaaba ak li nga xam ne nii aju na ci aaya bii la bëgg ci jàng eh, li ko li sababu nusul ba Abdullahi ibnu Salaam dafa amoon ñaari doomi mbokk kenn ka turam mooy muhaajir kenn ki salmata mu xoo leen ci lislaam ne mooy dëgg yonent bi ngeen jàngoon ca tawreet ñëw leen ngeen gëm ko kenn ka gëm kenn ka bañ léegi nag salmatu moo jébbalu muhaajir bañ mu naqari ko lool aaya ja wàcc nag ne ko lislaam duñ kenn bàyyi ko moo tax mu ne waman yar xam du sib baatab raxiba bu jalgatee xan rek sib lay firi moom nga teg waman yar xam du sib xan milata ibrahima wala si woonu ibrahima yi ilaa man sa fenn koo xam ne dese na naf soo bakkanam